maa ngi tudd Adja Ndeye nekk la coordonnatrice de l'union départementale l'union communal de Thiès euh, yàlla def nag ñu jiite mairie yëpp euh, léegi nag marche mi nekk marche régionale yàlla dogal waa Pout ñu ngi fi waa Mbour ñu ngi fi te waa waa Xombal ñu ngi fi waa Tiwaawoon aussi ñu ngi fi bari na ñu fi ñëw ci département bi ndax marche nationale la léegi nag li ñuy wax mooy njëkkoon nañoo marche ñëw fii ñu taxaw tey bërëb bii ci doléance bi nga xam ne moo ñu indiwaat jusqu'à présent amaguñ ci satisfaction c'est plus d'un an marchaat nañu ren dellu siwaat waat fi comme niñ ko waxee woon ñiy wax ni dañu sonn parce que ay accords yu ñu signé depuis un an ou plus d'un an nit ñi di ci topp boobu ba tey mënuñoo fexe ba am ci satisfaction dañoo bëggoon ñu jox agent municipal yi seen gëdd jox leen respect delloo leen seen cër parce que nag agent municipal du n'importe kii li ñuy liggéey ci dëkk bi moo ëpp solo téeméeri junni yoon suñu taxawoon dëkk bi taxaw ku bëgg kayit doo ko am ku bëgg leneen doo ko am identification ku ko am rek dangaa dem ci mairie yi kon nañ respecte agent municipal yi jox leen seen gëdd parce que dañuy liggéey ci terrain bi jour et nuit di jàppale nit ñi tribunal bu agent municipal liggéeyul woon mairie yi tëj tribunal sax du fa du dox du fonctionner parce que li ñuy liggéey tribunal dafa lëkkaloo ak ñoom kon dama bëgg ñu xam ne statut bi ñuy xeex ak augmentation yi ñuy xeex euh, ngu nu mu tuddati kii gàtt mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk kon ñoom mënuñu augmenter suñu yeneen naataango ba pare bàyyi ñu fi depuis loor di ñu foye di ñu këll këllee dañoo bëgg ñu xam ne ñoom ni ñu xeexee ba jot pouvoir ñu ne noonu la ñuy xeexee ba jot suñu augmentation yi parce que nag lumu leen jaral jaral nañu duubal ba parce que ñun dañoo sonn dañoo daw ba dee amuñu salaire yu baax ku ñu gis yërëm ñu kuñ ci jox sa salaire mënoo koo yóbbu sa kër dundale ko sa njaboot mënu laa jëndal sax ravitaillement bu mat waxantuma laa ngay wax électricité bu seer wax ndox mu seer wax leneen ak leneen nit ñi sonn nañu waaw ils n'ont qu'à nous aider parce que ñoom fekk nañ ñi ci liggéey boo xam ni gouvernement bi dem liggéeyoon na ko ba nga xam li ci des mooy appliquer rek comme nag ñoom yëg si woon nañ ñu am ci ñoom yaakaar bu rëy ñu ñëw ci pouvoir bi ñu yaakaar bu rëy lañ ci amoon bi ñu egsee ñun ñëpp dañoo applaudir à deux mains ne xam naa ne moom affaire bi sotti na jusqu'à présent nag gisuñu ci dara suñu ministre de tutelle ñu ngi koy interpellé na ñëw jàppale ñu eggale liggéey bi ñu ñu mën a am lu ñu bëgg premier ministre aussi ñu ngi koy interpellé di interpellé le président de la république lui-même pour mu jàppale ñu ta xam na ñun ñëpp ay njabootam la ñu tey kon nañ ñu jàppale xaw la ñuy xeex ñu dimbali ñu mu am réussite ñu mën a am lu ñu yore suñu kër yi wasalaam. merci. voilà je m'appelle Mouhamadou Ndiaye donc je le porte-parole de l'union communale des travailleurs de la ville de Thiès en même temps le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la mairie ville de Thiès. de cette marche? Euh, cette marche entre dans le cadre d'un plan d'action national euh, qui vise à exhorter l'État du Sénégal euh, à appliquer euh, sans délai les dispositions de l'article 29 de la loi euh, euh, à savoir Euh, l'augmentation euh, des salaires et des travailleurs qui sont dans les collectivités territoriales, euh, dans toutes les hiérarchies, à savoir les hiérarchies A, B, C et D, mais aussi euh, une augmentation du point indiciaire des travailleurs des collectivités territoriales, euh, une, une, couverture de maladie universelle des travailleurs qui sont dans les collectivités territoriales, mais aussi le transfert de la pension de retraite de l'IPRES à l'FNR. Et globalement, nous exigeons également à l'État du Sénégal euh, de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour une effectivité totale de la fonction publique euh, locale. Comme vous le savez, euh, ça fait plus d'allemand tout ce qui nous revient de droit, l'État euh, puisse, euh, le, le, le, faire. Et aujourd'hui, comme vous le, vous constatez, ces deux années de lutte, euh, d'amertume, de désarroi, mais également qui a causé d'énormes préjudices chez les agents municipaux. J'en profite également pour lancer un appel à des maires du Sénégal, euh, d'être beaucoup plus solidaire, en tout cas de manifester plus de solidarité vis-à-vis des agents qui sont dans les collectivités territoriales. Euh, je rappelle, euh, ces derniers sont, les, sont la cheville ouvrière, ou disons même euh, la clé de voûte de toute réalisation, mais également de tout, tout, succès euh, de, de, de, ces maires-là. Donc ces maires, véritablement, devaient avoir une posture, euh, en tout cas allant dans, dans un sens beaucoup plus solidaire vis-à-vis -vis de, de leurs bras techniques qui sont les agents municipaux. C'est le moment également et le lieu de remercier, euh, d'encourager, mais également de magnifier euh, la détermination, l'engagement sans faille euh, de tous nos camarades. Depuis le début, ils se sont restés debout, euh, dans nos côtés, avec l'intersyndicale, à lutter avec dignité. Leur dire tout simplement euh, que le combat continue et seule la lutte libère. Merci. de parler de l'intégration de la fonction publique. a été fait en amont par le régime précédent. Et comme vous le savez tous, l'État est une continuité. ce, régime qui est en place avait fait, euh, en tout cas l'effectivité de la fonction publique locale, une grande promesse électorale. D'ailleurs, beaucoup de Sénégalais, en tout cas, ont adhéré à leur cause euh, de, de, par leur, en tout cas, le, ce qu'ils ont manifesté euh, vis-à-vis euh, -vis des agents municipaux. Donc aujourd'hui, une fois qu'ils sont au pouvoir, donc ils sont tenus et ils doivent véritablement respecter leurs promesses électorales.